ada Malaysia. ngi lay siyaar. jamu ngi lay lo jangan maa ngi lay delloo. yan ko yàlla boole. yaakaar naa ne tey seetaan nga diggante Mama Lamine ak Gora Sock. seetaan ay extrait. Wow, muy komba boo xam bukan bokk na itu combat yi ci Wow, wow, waaw waaw waaw combat mais ci combat ci carrière Mama Lamine nga ay combat bi tàng djel mu ñëw hmm? di imposer mbeur combat Gora sok ci carrière ci tan nga ci ay combat yu bari mi ñew di imposer mbeur hmm. combat yoyu nonu tey gi nan nga ko jangate ci diggante Mama Lamine ak Gora Sock waaw gannaaw bi nuyu gaay ñi yi ñuy ñëpp di euh ma lima jaaxal faram ci combat bobu mom moy nan la Mama Lamine di indi parce que man Mama Lamine dafa am ci lu mu jógee dafa amul dynamique de victoire bu mu nekkoon waaw ndax ko fatlikou Mama ak euh, Boursine xeex bu metti ga explosivité bi nekk ci Mama mhm. li may jooyal Mama Lamine mooy est-ce que Mama booba indi na Mama parce que Mama gi dama ko gis vite fait ci vidéo yi mais dafa mel dafa xaw a jeex mais Mama bu nekk ci euh, dynamique bu doy waar la nekkoon boo xamante ne fi ñu ko doon séntu malheureusement ndog-ndog daf cee jaar. Mhm. góor a soog aussi ñu séntu ko fu weesu fii mu am dog-dog bu doy waar bu ko dal ci diggante ba Fils de Balla mhm. mu war a dellu si mu bokk ci lii naa Modou yoo xamante ne Parcelles da leen yaakaar donc combat bi impérativement ñoom ñaar ñëpp dañoo soxla victoire mais mais na góor a soog ñëwee bëri bopp góor a soog gëw ma ni dana gën a gaaw Mama Lamine pour Gora Sock gagné combat bi nan la war a réagir. warul pour Mama Lamine war a gagné combat bi nan la war a réagir. Gora Sock warul warul xeex te jàppul pour man. Gora Sock warul xeex te jàppul Mama moo gën a gaaw ci li ñu jot a wone ba tey dégguma la. Mama Lamine moo gën a am souplesse quoi. ah waaw explosivité explosivité gi nekk ci Mama Lamine newul ci Gora Sock mais dama gis góor soog dafa nekk benn super lourd boo xam ne nii bëri na lu nekk ki moom. oui mais erreur bi ma maanaam góor soog dafa dafa nekk super lourd boo xamante ne day bëgg a koo xamante ne dafa. poids léger poids léger te du yoon. Hmm. saa yu rëppee saa yu rëppee parce que rëpp daf ko yomb saa yu rëppee looloo ko rëpp loo day hmm. fàtte li mu doon moom góor soog. te ki muy bëreel kii muy bëreel kii muy bëreel moo ko gën a gaaw moo ko gën a sot Mama Lamine moo gën a sot te attention Mama Lamine dafa am bëri Gris Bordeaux amoon bi muy débuté mooy maanaam da lay mu buub mm-hmm. am dafa am dugg génn loolu te Gora Sock dafa war a surveiller Mama Lamine Gora dafa war a surveiller Mama mais mm-hmm. aussi warul weccoonto kubulul jeex manam buy xex ben loxo la wara xexé xar teru ba parce que gor euh, Mama lami da koy wor Mama lami da koy buub mm-hmm. Mama lami da koy sàcc ji parce que Mama lami mm-hmm. non lay beure Mama lami day day xex di bouk xex di jël xex di jël gëri bo do doon beure ci bu mom la Mama lami di beure donc goroso munul gëw ni mën na gaaw ba tolloog Mama Lamine Gaawaay. Hmm? góob parce que dayu bi la. dayu bi la góor a soog nit ku nit la macha allah luur la góor a soog. Hmm. guerrier la day entraîner pour sécher yaram bi boo ko gisee muscle bi chaque jour day moo ko sonal sax sa sa fils de balle dafa physique lu bëri. mais bëri gi muy bëri dafa méngoowul ak poids kon poids bi mu góor a soog yor ak li góor a soog di bëri du nekk benn. déedéet. parce que boo xoolee ba ni muy daanee ay ñoom bàyyi ma joon day rëpp ba pare doog a daan. dëgg la. Tyson 2 bi muy bëree moom Tyson 2 loolu la ko bëree loo. Mhm. bëri gu sew googu noonu rëppaloo ko fexe loo ko def quatre appuis. Mhm. te mu ngi bëri koo xamante ne li ma la wax moo ci nekk. Mama Lamine li mu bëgg moom mooy perturber ko xeex ak moom xeex bu gaaw daw sàcc ko génn dugg génn dugg génn boobu la la la Mama Lamine di bëree moom ah. Mhm. donc mom xex ak Mama Lamine pour man ben lox la wara xexé euh, Mama Lamine góor sok ba paré nañ di surveiller bu teurul bu jappul ba mu dëgër waru xex ak Mama Lamine. góor sok bu xex bu jappul mu dëgër. waru Mama Lamine. Ah, parce que Mama Lamine nag gëna gaaw. Mm-hmm. Mama Lamine nak day dafa wara a xañ dafa wara a xañ jàppante gu metti gu sax googu non góor a te bëri ci rapidité bëri ci rapidité parce que Mama Lamine explosivité boobu naturellement daf koo li mu woon balaa moo am ndog-ndog bien sûr. mais Mama Lamine bi yaakaar naa ne ci nan la ko war a ci bi nekk na combat boo xam ne nii ma gis ne Gora Sock dafa gën a large boo xam ne taxaw na ci kanam Gora Sock mais gis naa ci ndax man mbëri bëri mbëru mel ni Mama Lamine communication ak ni muy jëfee ci làmb benn la. waaw waaw góor Sock góor Sock nekk na mbër moo xam nii mbër mu ñuy bàyyi xel la ci làmb waaye Mama Lamine lépp lu muy wax ak li muy jëf benn la doon Gora Sock ne nekk na koo xam ne nii bëreem ci biir xeexam lépp lu la ci def action bu assuré lay doon ci biir bëreem. moom laa lay wax moom laa lay wax lépp lu muy def ci làmb rek lu assuré lay doon. te Mama Lamine day xeex ak Gora Sock da koy xeex ak moom. loolu nag pour nga dugg ci biir combat bi dëgg dama lay bàyyi nga développé ma déglu la. li ma lay wax moom moo ci nekk Mama Lamine ndox-ndox bi mu am moo ñu xaw a jaaxal tuuti ci moom mais Mame Lamine gars yi ñu ngi ko doon séntu fu gën a kawe fii parce que Mame Lamine comme ni ma la wax dafa am sañ-sañ boo xamante ne da koy dégager ba pare ragalu li muy def ba pare am na rapidité am na entraînement bu góor avant moo am ndog-ndog laay waxaat tamit pour mu leer mais Mame Lamine bu indee entraînement boobu ki nga xamante ne moom mooy góor a soog bopp la war a bëreeg moom war koo fekk si si dama lay duma parce que Mame Mama Lamine day xeex di jël ko gaaw na te mën na xeex mën na sa mbër yu bëri yu mu daan da leen coup bi da leen dal ba pare mu buub leen donc Mama góor a soog bopp la war a bëreeg moom stratégie la war a bëreeg moom mais Mama Lamine warul warul warul bu arbitre sifflé dafa war a fexe réduire écart bi fexe nu mu touché góor a soog balaa góor a soog di réagir mooy buub na ko. Mm-hmm. soit mu jël ko dëj ko wala mu mu jël ko wër ko wër ko. mais que xeex bu ñu xeex ci làmb Mama Lamine xeex bu ñu xeex ci làmb ndax mën na cee mën na cee daan góor soog. Mm. bu touché góor soog mooy dem dem na jël góor soog lii maa la ko wax. maa la ko wax bu ko touché rek jël na ko. Mama Lamine bëreekat la Mama dafa offensif bu taxawee buñ ko taxawloowee yàq làmbam Mama Lamine dafa offensif. dafa sawar danga koy bàyyi mu ñëw exprimer wu. koy bàyyi mu ñëw def explosivité gi mu gëm. loo tax Gora Sock la war a benn loxo la war a xeexee Mama di ko surveiller nag di xaar di xaar Mama Lamine Mama Lamine xeex bi sax gëmu ko da koy daw jël xam. dafa war a tëru dafa war a tëru Mama Lamine ba pare nag mu indi indi détermination mam mam Lamine dafa jot mu indi détermination duma daanu góor soog parce que hmm? góor soog dafa war a indi jour boobu duma daanu détermination boobu comme la war a indi xam ne fi ñoom Franc toll xale bu ndaw la am na doole mais na xool moom dayu bu mu toll bañ a bëri ni Franc di bëree parce que moom ak Franc bokkuñu corpulence moom dafa ñu

voilà dafa war a indi duma daanu. loolu am na solo. voilà trop. mais boo amoon boo amoon kàddu boo ciy tëgee ci seen diggante ñoom ñaar ci ku ci nekk lan la war a moytu ak ku ci nekk lan la war a def avantage am ñoom ñaar ñu doon tëj laaj bi. man daal li may wax góor a mooy na moytu na fekk si mbamba la mel ne da koy duma. at bi cycle jàppoo nga ne da koy duma. bu bu mu kompor ak moom gaaw. mbamba la mel mbamba la mel na éviter góor a soog sëkk ci ngeñoom. ba mu ne dër taxaw te jappul mhm. waaw waaw Mama Lamine dal na bëri see li mu meun comme li Mama Lamine dal indi ci lamb dal na continuer indi lepp bu mu ci bu mu ci dindi dara bu mu ci dindi dara Mama Lamine na indi ne indi mental ne indi mental ci lamb ji mais bu arbitre sifflé li mu daan indi sañ-sañ ak explosivité yi mu doon indi mhm. naka ci naka ci rokkas ba mu saf ba mu ci wañi dara am na solo dina jox rendez-vous suba nak pour ñoom leen ci luñ waxtaan. waaw waaw incha allah incha allah. kon gars yi jërëjëf